njëriñ yi nga xam ne moom lañuy am ci julli guddi démb ci kàttanu borom bi waxoon na ñaar fukki fukki tomb ak juróom-ñeent tey ñuy jël ñaar fukkeelu tomb bi ak yi ci tegu nee na julli guddi takunu mimman yuzilluhumullahu bi zillihi yawmal qiyaama kii julli guddi dana bokk ci ñi nga xam ne sunu borom subhaanahu wa dina leen keral bis bi nga xam ne ker du am kon képp koo xam ne danga bëgg sunu borom subhaanahu wa keral la ëllëg yowmal qiyaam bis du ker dul am fexeel nga bokk ci jullikati guddi yi ndax ñoom ëllëg danañ bokk ci ñi nga xam ne yàlla dina leen keral ci keppaaram yowmal qiyaamati ba ca tegu mooy almalaikatu tastamiu liman yusalli billeyli malaaka yi ak seen màggaay ak seen mbaax ak seenu teddange ñoom dañuy déglu ñi nga xam ne dañuy julli guddi allahu akbar xool leen malaaka yi mbokk yi nu ñu toll ci seen màggaay ak seenu mbaax nga nekk fii ci suuf di kàbbaral yàlla di ko rukkool di ko sujjootal di ko jullil ñoom malaaka yi ñu nekk ca malaul aala di la déglu te yow yaa ngi ci suuf almalaikatu tastamiu yu yusalli bi leyli malaaka yi dañuy déglu jaami yàlla bi taxaw di julli guddi jàng yooyu muy jàng sàbbaal yooyu muy sàbbaal ci rukkoo yi ak sujjóot yi ñaan yooyu muy ñaan di tàllal yàlla loxoom di toroxlu malaaka yaa ngi koy déglu mbokk jullit yi julli guddi dafay dàq càggante ci xol julli guddi day dindi càggante ci xolu jullit jullit bi su fekkee mu ngi julli guddi xolam dafay jege yàlla tabaraka wa taala xolam day déeyoog yàlla looloo tax càggante dootu ci nekk mbokk jullit yi julli guddi sabilu nasr alal aada mooy tax yàlla dimbali ji sunuy noonu sallallahu alayhi wa sallam danaan tàggat sahaaba yi ñuy julli guddi looloo tax saa yu jàkkaar saa yu jàkkaarle woon ak noon yi duma leen ñun tey gis nga ba ñu bàyyee julli guddi yaa fuus moo tax noon yi jël lépp lu ñu jël teg suñu kaw waaw di ñu wëlbati di ñu papam patam patamee di ñuy rey ni ñuy reyee ay weñ di ñu toroxal mbokk jullit yi julli guddi ki koy def da ngay tax nga noot say noon say noon lu ñu ñàng-ñàng lu ñu garaaw garaaw lu ñu am ay pexe am pexe sunu borom subhaanahu wa taala def lay dimbali ci noon yi mbokk yi julli guddi dafay dindi feebar ci yaram wallahi lazi laa ilaha illa huwa kenn ku feebar ci ñun na ko essayé na fexe di julli guddi même bu dee ñaari rakk dana gis sunu boroom subhaanahu wa dina dindi feebar bi ci yaramam mbokk yi julli guddi dafay waral yërmande yàlla tabaraka wa taala qiyaamul min mujibaati rahma julli guddi day tax nit am yërmande yàlla tabaraka wa taala képp koo xam ne ci ñun danga bëgg sunu borom subhaanahu wa taala yërëm la boole na ci jaamam yi mu yërëm mbokk yi del julli guddi mbokk yi al arsh yahtazzu min as-sahar arshur fa yàlla nekk dafa yëngatu waxtu njël allahu akbar waxtu wi nga xam ne jaami yàlla yaa ngi kabbar ñoo ngi rukkoo ñoo ngi sujjóot ci kanamu borom bi tabaraka wa fa arshur rahman nekk dafay yëngatu allahu akbar xool leen fa yàlla nekk di yëngu ana moo tax muy yëngu ab jaam bu sujjóot ci kanamu yàlla tabaraka wa di ko bàkk di ko kañ jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu naan ko subbuuhun qudduusun rabbul malaa'ika war ruux allahumma laka sajadtu wa laka aamantu wala ka aslamtu allahu akbar di bàkk yàlla di ko kañ fa yàlla nekk tabaraka wa di yëngu ndax ab jaamam bu nekk ci suuf di ko kañ mbokk jullit yi almujtahiduun mu ne ñi nga xam ne dañuy naafila guddi ñoom ñooy ñi nga xam ne dañuy wéet ak yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala di leen sotti leeram di leen sotti yërmandeem ñi nga xam ne dañuy julli guddi sunu boroom subhaanahu lañu taala wéetal sunu boroom di leen sotti leer di leen sotti yërmande mbokk julli yi ñuy julli guddi ñoom ñooy am ngërëmal yàlla tabaraka wa ñoom ñooy am kontante yàlla ñoom ñooy am yërmande yàlla ëllëg yowmal qiyaamati mbokk jullit yi ñiy julli guddi ñoom day yéem nañu yàlla yujibu rabbuna mimman yaquumu bil leyli sunu borom subhaanahu wa taala yéemu na ci ay jaamam yoo xam ne dañoo taxaw guddi di julli lu tax guddi ni mu neexee ay nelaw guddi ni mu neexee ak wéet ki nga bëgg nga bàyyi loolu yëpp quatre jot nga jóg jàkkaarloog sa boroom di ko bàkk di ko kañ suñu borom subhaanahu wa dafay yéemu ci yow mbokk julli julli guddi day tax nga am mujj gu rafet waaw julli guddi day tax nga am mujj gu rafet booy faatu da ngay faatu faatu bu rafet sa mujjantalu dund ci àdduna day nekk dund ku rafet mbokk julli di julli guddi day tax nga am teeyu bakkan sa xel day dal sa conscience day tranquille sa yaram day sawar boo xëyee fajar ku la gis mel ne yaa ngi danga dañ la sang ba set cuub la tent la ba nga rafet leer moom mooy jolli ci yow ndax gu la yàlla subhaanahu wa fanaane fanaanee sotti mbokki jullit julli guddi boroom yitte yu kawe ñoo koy def moo tax kuy julli guddi day am yitte bu kawe ndax boroom yitte bu kawe ku bëgg a nekk ci kaw kooku mooy bàyyi yenn waxtoo mi jox ko yàlla tabaraka wa taala mbokk yi julli guddi dafay musal nit ci safara te ñun sunu dund fii ci àdduna soxlawuñu lenn lu dul sunu borom subhaanahu wa ëllëg ñu am ngërëmam mu daal ñuy soreel safara julli guddi yun ji minan niiraan dafay musal nit ci safara ëllëg yowmal qiyaamati dafay musal nit ci safara jahannam ixwatal imaan julli guddi day tax borom bi tabaaraka wa bëgg la day tax malaaka yi di la yàlla subhaanahu wa taala di la tiitaroo ci malaakaam yi yàlla naan yéen samay malaayika xool leen sama jàmbee bàyyi na lalam sori na soxnaam wala bàyyi na borom këram dugg na ci ndox mu sedd mi ma nga ne moom kenn wéet ma nga may kàbbar di may rukool di ma sujjootal di ma màggal di toroxlu ci man di ma ñaan ndax xam na ne man dong li ma yor moom ma ko moom moo tax moom jaam bi mu daal di may jublu pour li nga xam ne moom laa yor moom mu am ci mbokk jullit yi sunu boroom jalla jalaaluhu wa azza dafay bëgg di tiitaroog ak malaaka yi ñi nga xam ne ñooy sujjoot ci kanamam guddi ñi nga xam ne ñoom ñoo wéet ak moom di ko bàkk di ko kañ ixwatal imaan julli guddee ngoog sunu borom subhaanahu wa bëgg ñu def ko qiyaamul leyl nañu jóg di julli guddi walaw rakaatayni donte ne ñaari rakka la jógal julli guddi donte ne ñaari rakka la jógal joxo sa boroom doonte ne ñaari rakka la jógal nga màggal sa boroom jógal nga sujjootal sa boroom jógal nga tàllal sa boroom say loxo say aajo àdduna ak àllaaxira say mbir biir ak biti dénk ko sunu boroom sunu boroom rek leel la ko ñu ñaan sunu borom jalla jalaalu wa azza kamaaluhu mu boole ñu ci juddi jullikati guddi yi mu def ñu ay jullikati guddi incha allah ba suba ak jàmm darsu tey bi fii la yem asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.